dañu ko jël jaay ko ñi nga xam ne ñooy clinique privée yi mu nekk kàddu yoo xam ne merloo na lool ministre bi ñu dénk wàllum wér-gi-yaram gi di Abdoulaye Diouf sar ba mu daal di koy porte plainte ngir nag ragg li nga xam ne mooy ab deram moom docteur Babacar Niang jot nañu ko convoqué jot nañu koo déglu waaye nag ñi nga xam ne ñooy ay avocat dañoo yëkkati seen kàddu ci mbir mi ak su dee docteur Babacar Niang li mu wax du dëgg ana lan moo ko ci mën a fekk ki nga xam ne nag moom mooy avocat bi ràññeeku lool di maître Ousmane sey nee na accusation yi nga xam ne moom la docteur Babacar ñaa def dafa nekk accusation yoo xamante ni yu doy waar la te kilifa suy wax dafa war a am ay firnde nee na nag docteur Babacar Niang lii nga xam ne moom la wax su dee du dëgg juróomi ati kaso mën na ko see fekk ba pare tamit ñu daal di koy amande amande boo xam ne bu diis gànn lay doona maître Baba Diop moom tim ab avocat la boo xam ne ràññee nañu ko loola nee na nag li nga xamante ni moom moo am ba des nee na docteur Babacar Niang mën nañu ko toppee li nga xam ne mooy division de fausse nouvelle te nag su dee lu mu wax amul day nekk coupable te bu boobaa nag day nekk infraction pénale daan nay wax ni ay sanction yu diis mën naa daanu ci kawam ki nga xam ne nag mooy metre abu Aboubacry Baro moom tim noonee la xamle nee na nag su li nga xam ne docteur Babacar Niang wax na ko ñeenti weeri kaso jàpp ñaari ati kaso ak ay amande mën nañu ko def njiitul suma assistance leneen loo xam ne jamono ji ñu bari ñoo ngi koy waxtaanee mooy mbiri rappeur bi di kilifa bu Y'en a ginnaaw bi ñu ko filmé muy waxtaan am ku mu doon diisool ci lu jëm ci wàllum visa ñeen nañu sax tuddee ko escroquerie visa ci ay vidéo ñu filmé ko ci loo xam ne lu mu yëgul la waaye nag li am ba des mooy ba léegi ni daal procureur yeyul yàbbi ci mbir mi bëri na ay activistes yoo xam ne yëkkati nañu ci seen kàddu waaye Y'en a ñoom raxasu nañ ba seet wecc ci mbir mi Karim Xurum Xaq moom tamit jàpp na ne procureur dafa war a autosaisiru te li am ba des mooy jamono ji ñu bari ñoo ngi romandaat li nga xam ne mooy ay audio whatsapp ci ki nga xam ne mooy kilifa bu Y'en a marre mu mel ni rek njaw ma ngi woy di desu xambin ba tey ci lu jëm ci coronavirus bi Touba nag jamono ji coronavirus bi ma nga fay lëmbee am na lu toll ci fukk ak juróom-benn ci ay cas grave maanaam ñoo xam ne ñoo ngi nekk réanimation El Hadji Ousseynou Diouf mi nga xam ne dafa soutenir maître Augustin Senghor ngir nag mu toogaat ci présidence bu fédération sénégalaise bu football yekk nañ ko musiba ak mbelengaan moom El Hadji ndax nag ñu bari dañoo jàpp ne dafa def maa waxoon waxeeta internautes yi VAR El Hadji ñu bari wax nañu ne El Hadji Ousseynou